chers collaborateurs des différents ministères chers collègues M. monsieur le ministre man dama jàpp le budget bi nga avons les différentes institutions dafa nekk budget boo xam servir renforcer budget bi nga budget éducation Nous ñu mun fi jëlee problème li nga les abris provisoires mais aussi monsieur le ministre nous permettre de recruter le maximum d'enseignants. ndax cette année ci on a un gap de 8000 enseignants dans le système éducatif monsieur le ministre ba nous aussi de construire des écoles Nous avons euh, le CM Moustapha Ndiaye de Kaolack de mais aussi école 1 monsieur le ministre vous jël aussi budget aussi renforcer euh, système euh, de santé construire des hôpitaux mais aussi des postes de santé surtout pour ci milieu loolu defe est de ëppoon une fuuf ci population bi que ñuy jël ay ay ay budget diko allouer des institutions yo xam ne politique dong mom mo len lal monsieur le ministre bo xolé budget présidence nga xamné plus de 80 milliards la ak budget euh, primature nga xamné plus de 25 milliards la je pense que la moitié nous na participer à améliorer le secteur de l'agriculture et de l'élevage. agriculture ak élevage dinañ permettre ñu baña importer plus de 4000 tonnes de maïs plus d' millions de riz mais aussi plus de d' 1 million de têtes de bétail si événement yi nga xam ne ni day am si réew mi ñu ngi dem di ko jëlee si réew yi nga xam ne ñoom la monsieur le ministre dinañ doon permettre souveraineté alimentaire bi nga xam ne nii yéen koy chanté depuis 2017 mu nekk une réalité. donc mais aussi budget yooyu war na ngeen ko jël dugal ko ci emploi des jeunes ba xale yi dootuñu jóg di dem di tàbbi géej bay dee ci géej ndax ñàkk confiance wala bok ñak li nga xamné ni nii moy espace espoir seen réew bu dem di wari un avenir meilleur bi nga xamné mom moy bitim réew ñu gis ne monsieur le ministre euh peuple bi waratuñ mënatuñu continuer di souffrir ba paré di nekk ci ay jafé jafé ñitt ñi xif mar ba pare ngeen wëlbatiku jël ay ay institution di len di financer à coût de deux milliards alors que population bi ñoom ñu ngi souffrir lool nekkul yoon je pense lool war ngeen ko revoir monsieur le ministre gis nañ nak nag euh yéen a ngi wër di diggee di def ay campagne électorale déguisée